Serigne Touba a compris quelque chose que personne d'autre n'avait pas compris au lieu du nouveau ciné au lieu de la grande Atlantide au lieu de Utopia il a créé une ville qui s'appelle Touba parce que moom aussi bi gars di gënt ay gouvernance mondiale ak di wax fan la ñu jëmee mbooloo mi ci kaw yàq diine yàq pas-pas yàq lépp moom géntu ko daa dem wut suuf su ko lew soo xam ne kenn mësu ko faa mu ne wajhal ilaahi maskani tuuba abad mislasmiha bi jaay xayri man abad te loolu mooy képp koo xam ne bëgg ngaa texe tey ak ëllëg fekk si ma ma won la fi ngay teg sa tànk jëm ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax sama dëkk bii turandoom balaa bëgg ñu seexoo ñu bennoo ñu muroo loolu mooy la réponse que Cheikh Ahmadou Bamba a apporté à la gouvernance mondiale et à tout ce que tu vois mm-hmm. mooy jox nit ki pas-pas mm-hmm. nan la mën a royee yonent bi nan la ko mën a bëggee mm-hmm. mooy li ñëpp di bañ mooy xër gi nit ñi xër ci Sëñ Tuubaa dof ci léeg-léeg ñu yàq ci lu ne fekk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ka doon jàngale ne mooy modèle bi te di ko wax di ko jëfe képp ku takkoo ak moom nga defaru defaru goo xam ne yàq du ca tege ndax dalay won ni ñuy dox ba roy yonent bi moo tax kii ne gàmmu yi day consolider acquis boobu sopp na bi day consolider acquis boobu màggal yi day consolider acquis boobu parce que tribune la boo xam ne mën nga ko tuddee colloque mën nga ko tuddee symposium mën nga ko tuddee loo neex mais benn thématique moo fay am mooy yonent bi nu ñuy fexe ba nit ñi bëgg ko nu ñuy fexe ba seen acquis de dëgër parce que boo bëggee yonent bi di nga jéem a roy ay jikkoom ak jëfam ak melokaanam mais réponse Serigne Touba bi li ci jiitu mooy daara parce daara la taxawal daara bu autosuffisant ci kaw doylu ci lépp loo xam ne amuloo ko nga mën koo muñ mën koo mën koo mën koo dëddu mooy nag il faut faire un choix gis nga àddina bii mënuloo ko am ba mu jeex jeexal ci sa énergie uti yàlla sëriñ bi ne ñi ma àndal kaay leen wuy ji yonent bi sallallahu alayhi naka la ñuy dundee mu ne day leen sàkku lu lew loo xam ni fa ngeen koy sàkkoo it lay tax ngeen mën a mucc mooy da ngeen di fexe ba du ngeen ko wuti ci koo xam ne bu ngeen àggee mu doon koo xam ne waru waru leen woon a sañal mu sañal leen mooy projet yi ngay gis ONG yi di ko def mooy projet yi ngay def fondation yi di ko def nga bind sa projet politique wala sa projet de développement wala sa lépp déposer ko fa mu war laa financer mu sañal la moo tax mouridisme modèle bu répondant la parce que musul am financement yoonu murid musul am benn projet bu demander financement dërëm ak ñaar dërëmi taaluba yi ak pas-pas bu dëgër parce que tey man lagan laa jóge imagine que Serigne Cheikh Saliou a dix mille personnes à sa charge moo mooy wodd mooy dundal mooy faj mooy def ci ñoom mbirum yàlla c'est un engagement keneen ak keneen di ko des te ñooñu ñëpp dañuy bay suuf fii nga xam ne tey politique agricole yépp a bon parce que xam nañ ne moyen am liberté la secteur informel bi lu tax duñu leen dimbali parce que c'est un moyen d'échapper au système parce que doo fekk fii benn ambulant nga di ko lebal di ko topp di ko nangam ak nangam mais dañuy dem ci milieu universitaire yi mm-hmm. milieu étudiantine yi nangam ak nangam dajale leen may leen ay bourse dig leen l'avenir mirage de vingt parures nax leen mm-hmm. wan leen àddina mm-hmm. ñu topp ko sànku bokkul ak ñi nga xam ni ñoom échec scolaire bi te amul beneen perspective c'est-à-dire koo xam ne euh, xam nga l'état quand l'état oblige les gens à garder les élèves jusqu'à l'âge de 16 à l'école c'est pas sérieux c'est pas sérieux ah non non non parce que am na koo xam ne bi mu fa defee 3 ans rek day échouer mais dañ koy paaseloo mbaay nday bàyyi di am yaakaar alors que kooku waroon nañ ko dugal ci yeneen circuit yoo xam ne état moo ko waroon créer muy ay métier mu yeneen xeetu jàng mu évoluer ci mais boo ko boo demee ba am xale ku ci am 16 ans boo ko bëggee dugal ak les menuisiers wala métallique day bañ mu dem commencé nag di am problème parce que ki am problème ñaari ñaari solution la am mhm. day dem tux wala mu naan wala mu defe lu ñaan ko yàlla jëleel ko fi ay problème te kooku day sell day dëgër borom pas-pas la mais xale yëpp ils vont ils vont tout ça. te la drogue a sa propre géopolitique. gis nga xaadimu rasul sëñ Tuubaa ne woon xaadimu nabi. Mhm. il n'a pas dit. Mhm. le serviteur du prophète. Mhm. le professeur du messager. dafa joxoñ baaraam alquran. jaawatu boo ko jëlee. loolu lay tekki. mais man murit la dañoo mhm. Muhammad. Mhm. wéeru wéeru dafa waaw wéeru man man murit laa. Mhm. waaye ñun murit yi sama classe bi. ñu ñëwoon Sëñ Tuubaa dañ ko gisul. Sëñ Tuubaa dafa def carnet de bord. c'est le plus grand écrivain de de l'humanité. dafa def feuille de bord. mu mas a daf ko bind. même dundal. les décibels. ñu mhm. ngi si subajo lettres mhm. de musique qui continue dans les lettres. Mhm. c'est plus utile pour transformer l'homme que l'homme en question. loolu les scientifiques n'ont pas arrivé à faire des critères décoratifs. ce qui a pris leur aile. war nañu jël léegi l'effet du son. pour comprendre lan moo tax. Matlabul Fawzayni wala Nuuru Daarayni wala Maraaxi soo ko jàngee parce que fonction la yàlla bi ne moom ngay hawi irtanda babi salatin anna yakunu mm-hmm. anna fawid amri du du shafi mm-hmm. donc problème bi ñu am ceddoo mm-hmm. dafa grave parce que nous nous restons dans un dans pour def l'éloge d'un héros et nous ne pas prêts à l'imiter nous ne pas prêts à le connaître et sa démarche bi muy ñëw moom fekk na lépp raaf sëñ Tuubaa fi mu feeñe woon fi la Sénégal toll y a des exceptions am na fi mu Sénégal toll d'accord dans les quartiers qui euh, jadis étaient nantis ña ngay jàng xasida ña soli riu set dem loolu a baa ngi jàll loolu on n'en discute pas mais on devrait aujourd'hui mm. si nos responsables tous taxaw xam ne modèle bi ñu yàlla jox mm-hmm. Japon pourquoi euh, mu mu mu réussir mm. Indonésie mm-hmm. docteur Moukhat pourquoi mu réussir mm-hmm. parce que ñun nous avons peur quelqu'un a dit hier benn attaque bu solo ku yàgg a jël ndab da boo ko ne premier du ko gëm ñu mm-hmm. ko gëm mm-hmm. donc li ma bëgg a wax ceddo mm-hmm. foo sopp nabi bi ma la wax dañ ko bëgg a dund te bëggu te ko mel ne man créé benn association tuddee ko sopp nabi xamul nabi xamul nabi Sénégal yi xamuñu nabi dama ndax sama baaxul. non xam nga porteur man porteur de projet authentique xam nga lay wax. léegi euh, dama bëggoon léegi ñëw ci solution yi. parce que moyen quart moo ñu desee. Euh, waxtu bi sax jeex na 30 lañu war a arrêté. imam moom il est comme ça. waaw ñu def débat ba jeexal tëb. non wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg. wax nga arrêté. non moom baax na xam nga xam nga imam porteur de projet authentique yi sëñ bi amoon. ay cheikh la woon. Mhm. à un certain moment fii Dakar amoon na ay booster amoon na ay kilifa yoo xam ne comme lu mel ni Hizbu Tarxiya mhm. Serigne Modou Kara mii ñuy wax mhm. Cheikh Béthio Thioune Serigne Abdou Karim Falilou ñoo xam ne ci jeunesse bi liñ ci tibb dugal ci ñoom yenn xalaat yi ak yenn identité yi ba ñu mën a nekk bari na mais bon ñooñu amatuñu fi mu toll nii euh, wala bokk amatuñu énergie boobu pour mën ko transmettre jeunesse bi parce que yow énergie bi ngay wax ci xasida yi mooy énergie bi Sëñ Tuubaa di def ci nitam après pour mu mën di ko trans euh, di ko transmettre ci koo xam ne warees na koo mën a génne ci safaan yooyu dugal ko ci mbir mi waaye solution bi ngay wax d'abord man toujours cru d'abord il y aura une solution politique parce que tant que solution politique amul dara du baax dara fokk ñu rek fokk ñu une solution politique gis nga gis nga tey Iran boo gisee mu taxaw ni mu taxawee parce que lan la parce que dawlatul islam la la loolu boobu de bon c'est très radical de le dire comme ça mm. mais dans un premier temps li imam Kanté wax deuxième solution la mooy un lobbying mm. ak euh, déjà il faut am ay lobby mm. ak ay mécène mm. mooy ñi nga xam ne dañuy sonn ci lislaam mm-hmm. borom alal yi nga xam ne ils sont conscients mm-hmm. d'un projet divin mm-hmm. di leen taxawu ci li ñu bëgg ak ci yëpp Pawlish xaakim la Pawlish Mbaye xaakim la waaw nee na waxi dof daa bari njariñ te day day day nee xéwal toog ci plateau def waxi dof am deux millions tey am na ñoo xam ne seetaan nañ plateau bi dinañ la bëggee suba jaajëfal la mhm. c'est très bien mhm. mais tey am na Imam Kanté xeetu livre yoo xam ne ak xeetu document yoo xam ne mhm. ak moyen yoo xam ne bu ko amoon fii mu ne dina ko weesu dix mille fois Oustaz Alioune noonu yeneen borom xam-xam yi noonu loolu engagement la tamit ci ak est-ce ak non engagement la tey quartier bu ci ne quartier bu ci ne am na ay jullit yu fa ne am na benn imam bu fa ne benn ustaas bu fa ne bu ñu war a taxawoo noonu mhm. moom it war nañu di diisoog moom ci bu ñu waree fal maire fal nangam fal nangam mu xool woppi quartier bi mhm. te des fois mën na nekk une boîte de nuit mën na nekk nangam ak nangam ak nangam donte ci pays de liberté la ñu ne mhm. am na lool buñ ko xeexee ci suuf day daanu ndax ñun ñooy pays bi tey mbiru garab yi ak ak ak kii. Mhm. yooyu mooy ay solution yoo xam ne. solution politique daal moom faaw ma solution politique moom c'est la solution la la plus radicale. Ah. Euh, sëñ euh, kon moom commencé na ci solution bi mhm. euh, foofu la ñuy jeexale. def benn tour waaw ndax ndax bi kon mën nañu. waaw mhm. damay rejoindre Thiedo ci li mu wax. dañ ne ci état bu organisé la nekk. moom la ñuy doxal. donc lépp ci politique lay tàmbalee. lépp ci politique lay jeexee c'est-à-dire que mënuñu régler dara dans ces te jaaruñu par la politique étant entendu que l'État les autorités politiques lii li koy saafara mooy la population nañu pousser l'autorité politique wañ loxoom ñu jël effectivement suñu indépendance mooy lan bàyyi jéggaani ay modèle suñu xale yi li ñu leen di jàngal lépp ci école bi lu ci bëri soxlawuñu ko ku dëkk bawol euh, lu muy taw bëriwul suuf si demewul noonu nga di ko jàngal le Brésil loo ko jëlee rien du tout donc lu ñu war a régler d'abord suñu système éducatif mooy mimétisme. Mhm. loolu loolu li koy li koy li koy firndeel olof Ndiaye dana ku ëmb sa sanqal ëmb sa kersa fekk ONG yi ak banque mondiale ak FMI ak yeneen organisme yu xeetu yooyu ñu ngi finance suñu éducation du ñu ci mës a am li ñu bëgg mm-hmm. il faut que mu am rupture mm-hmm. dóor mu dagg ñu arrêté di importer ay modèle toog jàkkaarloog suñu société xool lu fi doxul mm-hmm. jéem créer solution par rapport a ces choses là mm-hmm. mais fee ñi ngi importer topp banque mondiale topp FMI par cycle de problème rek la ñuy dugg mm-hmm. cycle sur cycle cycle sur cycle ba ilaa yomité donc li Iran les pays de l'Asie Chine Indonésie ñooñu ñëpp copié benn modèle européen dama koy faral di wax sunu sunu ñi may ñi may discuter des fois. daa leen ne Sénégal dañoo gëm ndimbal te ndimbal du yóbbu nit fenn sëñ bi ba muy sant tuubaa ku ko fa fekk donc nañu jëmbat suñu askan gëm suñu bopp gëm suñuy valeur gëm effort gëm góor góorlu ngay xool suñu état école bu ñu bëgg a créer fokk ñu dem wuti coopération c'est inadmissible école boo xam ni sox soxla un milliard il faut que wut ay partenaires da xool école officier école des officiers de la gendarmerie nationale loolu mun ngaa xëy te mun nañ ko financer suñu budget te soxla wuñ soxla wuñu européenne soxla wuñ France soxla wuñ kenn am na ay benn benn bi ñu yor alal boobu dul gouvernement bi sax secteur privé bi. Mm-hmm. donc daal euh, crise bii ñuy dund. Mm. li ma wax rek li koy li koy li koy changé. Hmm. li ko fiy jëlee. Hmm. mooy nañu jël suñu indépendance. Hmm. politicien ak état ñu maye. dañ leen foqati dañuy foqati seeni loxo askan wi nañu jël conscience xam ne yoon wii ñu jëm baaxul te jëmewuñu fenn ña am ji ko yàqu na yàqu goo xam ne mag mu dugg ci tataa xam ne réew mi yàqu na ndax gone mayatul mag mu toog le respect des anciens amatul dama koy dama koy wax ñaari valeur yi ñaari valeur yi bu ñu ko bu ñu ko bu ñu ko ñàkkee rek rek ñun dañuy dem droit vers l'échec mooy yar ak solidarité te yar toxu nag ñu ngi toxu ci sunu askan gone yi yarootuñu joxatuñ kër kenn jox amatuñ am am am amatuñ teggin te gone bu melee noonu mag du ko yërëm du ko dimbale ci lim xam ak ci lim am dëgg boobaa tumuraanke dugg merci beaucoup jërëjëf imaam eh, sidaam xam nga hmm. imaam man ba dama bëgg imaam joxe solution si solution yi laa laa koy laa eh, damaa jàpp ne réew mi léegi hmm. njàng ak xam-xam amatu fi valeur jëlal si milieu presse bi da nga gis journaliste boo xamante ni CESTI ci la génnee fu nekk mu dem fa ñëw ci rédaction ñu forfale ab animateur boo ne ni waxi dox yi Pawlish di wax lay lay wax moo koy moo koy moo koy ëpp salaire moo koy ëpp cër ca ca ca ca rédaction bu ko bëggee jëlee ca télé bi sax jëlee ko fa mhm. muy simple animateur boo xamante ni jàngu defut dara mhm. nga nga xool ko ci moo nekk ci secteur yëpp kon léegi bu ñu demee ba nit ñi léegi euh, jàng demal université diplôme bu la neex nga am ko nga ñëw ñu tegal la jiit loo xamante ni daanaka mën naa ne fer yooyu nag buñ demee ba jeunes yi di gis loolu xale yi tamit dañuy gëm ni njàng mi amatul njëriñ dañuy gëm ni xam-xam amatul njëriñ dañuy gëm ni référence amatul njëriñ ni ko Cheikh Amidou Kane daan wax quand les repères tout bouge actuellement foofu lañ toll. ndax léegi fi ñu toll nii dëgg dëgg ci jamono jooju lan mooy solution bi yëf yi tasaaroo na jàng amatul xam-xam amatul valeur euh, lan mooy solution bi. Euh, solution bi mooy que ni euh, xam feebar bi xamee ko bu baax xam li ko sabab diagnostiqué bu baax ba ñu juum. Mhm. ci. Euh, ban façon feebar moo nekk suñu société parce que société bu nekk ak feebaram mm-hmm. histoire am na mu tëddee ak euh, na muy doxee mm-hmm. euh, feebar bi tam noonu dafay duggee mm-hmm. boo gisee tey par exemple coronavirus bi ni mu mel Europe melu ko ci réew yi parce que seen mode de vie ak léegi seen pyramide des âges le fait que mag ñi dañ faa bari ak seen mode de vie ni ñuy laamisoo suba ngoon day wute ak ñun donc loolu benn misaal la ci mais li ma gëm mooy ni Euh, te loolu ma gëm maa ngi ko jëlee ci alquran suma gëm-gëmu bopp inna allaha laa yughayyiru maa bi qawmin hattaa yughayyiru mhm. maa bi anfusihim mhm. kon loolu c'est une loi mhm. euh, immuable yàlla moo wax ci alquran ne su ma neexoon ma soppi lépp ni muy defee kun fa yakun wala leneen mais dafa ne lu jëm ci seen société ni mu tëddee euh, su ngeen soppiwul ni ngeen nekkee du ma leen dimbali ci ngeen jëm fu baax kon première solution bi mooy ñun suñu bopp ñu xam ne ñun ñooy solution bi et tamit ñun ñooy problème bi et que suñu taxawee fii naan mooy diw diw diw kii moo ñu def li kii moo ñu def li euh, dinañ fi yàgg kon am nañu euh, d'abord prise de conscience tawaxee boobu nga xam ni euh, dañ ko war a def di ko waxtaanee di waxtaanee feebaru